وقال وانا علي بن ابي طالب علي بن ابو طالب رضي الله عنه يالنا yàlla gërëm jële xadis bi jëm nañ ko bu baax a baax mu ñu ne sax yoonu tooxu ko dañ sos sos mën xew daal jar naa moytu la ci nekk ci du bon yonent imaam Ali nee na dugg daxaltu dugg naa ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana mën a Fatima ak Fatima radi yàlla gërëm allah yàlla na ci moom imam ali ne dama mos a dugg ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam man ak soxna Fatimatu yàlla gërëm Fatima waje naaw ñu fekk mu ngi jooy bu kaan jooy sëriñ bu tat imam ali ba duggee ak Fatimatu fekk yenentu baa ngi jooy jooy métti فقلت ما لو نيالكو في داكا جتينا لا أبي سمو بابو أمي أقسم يا يا رسول الله يورن تيالبي ما الذي أنا لين خمن أبكاك مولا جيرو من تلا وخ يورن تي بينكو ما مالي ما وخ ما نلا جتة سمو يا أقسم بابو kooku waxinu arab la maanaam bu la dara dal na dal dal sumay waajur yow nga mucc fa yonent yàlla bi lan moo lay jooyloo alladi ab kaaka ana lu lay jooyloo qaal yonent ne ko yaa ali laylata usriya guddi gañ rañaanee man ila samaay jëm asamaan raytu gis naa nisaan ay jigéen min ummati samay xeet yu azab nañu ngeen mbugal bi anwaayil azab yi ci xeeti mbugal keroog guddi gi nga xamee ne yàlla na ma yóbbu ma ci asamaan gis naa ci sama xeet jigéen ñoo xam ne façon mbugal bu nekk mbugal nañ leen ko fa bakkaytu ma daal di jooy li ma raaytu ngir la ma gis min shiddati azabihinna ci tatak seen ak mbugal yonent ne yu métti yi ma gis ci jigéen ñooñu nga xam ne sama xeet lañ bokk loolu daal moo tax may jooy kon Ali ibn Abi Talib dafa dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak Fatimatu fekk jooy jooy yu métti mu ne ko lan moo xew na musiba gi dal sama kaw man ak samay waajur yow nga mucc ana looy jooy yonent ne ko keroog bu ma yàlla rañaanee dama gis ci sama xeet ay jigéen yoo xam ne ñu ngi leen mbugal mbugal mu métti lool mbugal mi nag métti gi métti moo tax may jooy waraytu gis naa ma imraatan jigéen mu àllaqatan buñ takk bi chaariha ca karaw ga yoxal laa ñuy baxal dimaawaxaa yuur ba dana ko wax ci gannaaw jigéen ji nga xam ne gis na jigéen joo xam ne karaw gi lañ jël takk ca safara yurgay bax lu waral loolu mooy daw muuru jigéen joo xam ne daran muri boppam góor ñi di gis karaw ga yomal xiyaamati daal lile moo di fayam su fekkee xadis bi wér na jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy takk ko ca kaw euh, safara rek yurgay bax loolu la yonentu gis daal di jooy mu ne waraaytu gis naa imraatan beneen jigéen muallaqatan buñ takk bi lisaaniha ci làmmañam wal xamiimu ndox mu tàng ma nag yu sab bu koy sotti fi xalqiha ca pour a xam mu ne gis naa jigéen joo xam ne làmmañ ba lañ takk dégg nga ndox mu tang ma ñi di ko sotti ca purax ka boobu jigéen moo di ban jigéen dana jàngal ni mooy jigéen di nga xam ne dana lor lam ci këram ci làmmañam kaddu gu ñaaw gu ne rek wax na ko borom këram kooku daal fayam mooy jël làmmañ ba rek takk ndox mu tàng ma ñu di ko sotti ca purax ka lii de la yonentu gis yërmande jàpp ko muy jooy mu ne ay tu gis naa imraatan jigéen xat sudda takk nañ rijilaaha ñaari tànkam ya ilaa sadyeeha jëm ci ñaari ween ya waya daaha ñaari loxom ya ilaa naasiyeteha jëm ci ñaari jëm ci njubb ga mooy bopp ba mu am na jigéen joo xam ne tànk ya dañ ko takk ca ween ya loxo yee ñu takk ko ca njubbu bopp ba di ko mbugal boole koog jaan yi ak jiit yi dana ko mu wax ci gannaaw ne gannaaw buñ ko takkee daal ci safara dañ koy boole jaan yi ak jiit yi ñu di ko mat jigéen jooju lu tax ñu di ko def loolu mooy daaw sangu janaaba bu amee mbërëg bu daggee daaw sangu tey julli bu amee janaaba du sangu tey julli wala sangu mi daaw baax jigéen jooju daal lii moo di fayam lii la yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi gis xolam tooy muy jooy su fekkee na lii ci yonent la jóge mu gis naa imraatan jigéen rasu bopp ba rasu xinziirin bopp mbaam xuux la wa yaram wa badanu ximaarin yaramu mbaam àll la alayha nekk na ci kawam alfu alfi lawnin junne junne couleur min al adab ci xeeti bugal yu bokkut gis naa jigéen joo xam ne yaram bi daal yaramu mbaam kër la bopp bi nag bopp mbaam xuux yàlla def na ci moom junne junne façon mbugal yu bokkut ñu ko koy mbugal ñu ne boobu ban jigéen la mu mooy jigéen bi nga xam ne daf daan rambaaj di jaxase diggante nit ñi ak nit ñi da fen rek du wax dëgg mukk kooku de lii moo di fayam waraytu gis naa imraatan jigéen ala suratil kalbi bu yore melo xaj wannaaru safara si tadxulu mu ngi dugg min fiiha ci gémmiñam wa taxruju mu ngi génn min duburiha ci gannaawam wal malaykatu te malayka yi yadribuuna ñu ngay dóor rasaha boppam bi maqaamiha ci ay mbolde mooy yar min naari ñu jóge safara yonent sallallahu alayhi wa sallam ne gis naa jigéen ñoo xam ne e, yàlla daf def ci melokaanu xaj safara ci di dugg ci seen gémmiñ jigéen seen gannaaw malaaka yi di leen dóor ay yar yoo xam ne safara lañ ko defaree kooku moo di ban jigéen moo jigéen di yoo xam ne lu ñu defal ñaax la ca wane ne maa la defal nangam ak nangam waaye jigéen ju añaan lool bëggul kenn am dara dégg nga bu nekkee wujjëm bëggut ñu am dara su sañoon moom lépp moo koy am ñoom ñu ñakk doomi wujjëm yi bëggut ñu am dara nit ñi bëggut ñu am dara moom daal boppam rek kooku jigéen meloo xaj la yore safara si dana dugg ci gémmiñ ga di génn ca gannaaw ko maraaka yaa ngi dóor ci bopp ba yar boo xam ne safara la jógee yi ne xeeti mbugal la yonentu gis sallallahu alayhi wa su ko defee moo waral mu doon jooy di fàttali ku mbugal mu tat momu nga xamne ne gis na ko ñi di ko mbugal aw jigen yu bokku ci xetam mbugal maa ngoogu yonentu gis na jigen juñ tak karaw ga di baxal yuur ba mo jigen di nga xamne ne daawul muur boppam gis jigéen joo ne ña ba ndox mu tang mañ di ko sotti ci porox ka mo jigen ju lor jëkkëram gis na jigen jo xamne ne ya tak nañ ko ci ya ñaari loxo ya ñu takk ko ci njubbu bopp ba bu ko defee boole kook jiit yi ak jaan yi mooy jigéen ji nga xam ne daaw sangu set mu da daan sàgganee sangu moo xam janaaba bala wala mbërëg gis naa jigéen joo xam ne bopp bi daal boppu mbaam xuux la yaram yi yaramu mbaam kër la am junne junne xeetu mbugal yu bokkut yu ko yàlla di mbugal jigéen jooju mooy jigéen ji nga xam ne daf daan ñaaxee lum la defal rek bàkk ko waaye daf daan nar di wax lu dul dëgg am na jigéen joo xam ne meloo xaj la yore safara saa ngi dugg ci gémmiñ ga di génne ca gannaaw ga malaaka yaa ngi koy dóor ay yar yu jugee safara jigéen jooju mooy jigéen di nga xam ne dafay ñaaxe waaw ki ma njëkkoon wax mooy rambaajkat buy fen dégg nga kooku lañ eh, dégg yaram boppu mbaam xuux yaramu mbaam àll rambaajkat fenkat di yàq diggante amaa ku yore melo xaj daal safara si di dugg ci gémmiñ nga di génnee ci gannaaw ga mooy koo xam ne lu mu defal ñaax la ko wan la ko waaye ku bari lu mu añaan yonentu ba mu waxee lii fa qaama jug na fatimatu fatima radi yàlla gërëm allah wala naa ci moom wa qaalat mu ne xabibi suma soppi wa qurata ayni yow mi nga xam ne yaay sedd sama xol wala yaay sedd sama bët dañoo wax ne ronkoñu mbégte dafay sedd guy ronkoñu naqar dafay tàng jër bu ñu waxee nag yaay seddal sama bët maanaam tax may jooy jooyu mbégte loolu la Fatimatu wax waajuram wa mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa man <coughs> ko maa kaana ana la nekk na amala haulaay jëfi gaa xataa wu dia bañ alayhinna seen kaw al azabu mbugal fatimatu ne waajuram salallahu alayhi wa sallam ñii lan lañ laan def ñoom jigéen ñi ba mbugal leen mbugal mu métti mi ko defee yonentu leeral nag ñoom ku nekk lu tax ñi mbugal la fa qaala mu wax ala yàlla nekk si asraatu xéwal wa salaam ak mucc yaa bu ne yeeyoo sama si mu àllaqatu kañ aj bi chaariha ca karaw ga jigéen ji karawam dañ koo takk yi bu yuur baax ñu di ko mbugal sa sawara amul kenn ku ko dimbale fay naa nag moom kaanat nekkoon na laa tuxatti du muur chaaraha karawam mina rijaali ci góor ñi jigéen la joo xam ne li daal góor ñi dañ laan gis karawam daw ku muur daaw muuru loolu rek mooy li ko dugal sawara ñu takk karaw ga ci baxal yuur ngir mbugalee ko feeñal gi mu ko doon feeñal ci kanam góor ñi waa man la ci ndaal jigéen ji nga xam ne kaana nekk na mu àllaqatan di kuñ takk bi lisaaniha ci làmmañam di jël ndox mu tàng mi di ko sotti ci porox ga fay naa nekk moom kaana nekkoon na tu vi di lor zawjaha jëkkëram dégg nga kooku da daan lor jëkkëram dégg أم دكتور وروح جنياو أو روح جبون وأما المعلقة وهي كن تك بسديها هاي نياري وينام كوكام نياري بوغل كن كيف إن أنا كمون كان نكون تفسير دياق دياق فراش زوجها الله جكرم جيجن جو قمنا داور جو جكرم بوبم دافكرون خن بوبم ولا دال مران دفلو خمنا تخنا دال jëkkëram du am benn bànneex ci kaw lal ba bal sax daf koy jëppi mel ni xalawu koy lakk ah jigéen jooju ween yi nga xam ne nii moo di weenam moom la takk di ko bugal ca jahannam wamal la ci ki nga xam ne tasudu dana takk rijlaha ñaari tànkam ya ilaa sadiha jëm ci ñaari ween ya tasudu danañ takk koon rijlaha ñaari tànk ya ilaa sadiha jëm ci ñaari ween ya waaye daaxaa ñaari loxo ya ilaa naasiyatiha jëm ci njubbu la waxat sullita te nañ alayha ci kaw jigéen jooju alxayaatu jaan yi wala xaaribu ak jiit yi fay naa naka ñoom kaana nekkoon nañ laatu nadifu duñ setal badanaha seen yaram min al janaabati ci janaaba wala xayt ak mbërëg te ko def kenn rek waaye mbooloo la jigéen ñi nga xam ne seen we seen tànkee ñu ngi ko takk ween ya loxo yee ñu takk ko ci njubu la kon am na ñaari façon jigéen am na koo xam ne wenn lañ takk di ko mbugal mooy ku doon yàq lalu jëkkëram maanaam daal fexe ba jëkkëram daal di am naqar rek ci kaw lalam moo xam daf di njaaloo wala boog daf di def jëf ju bon ju koy xañ bànneex wala daf koy xañ boppam yooyu yëpp dugg na ci yàqab lal lépp luy karajal lal daal loolu jigéen ju ci nekk ween ya la takk am na koo xam ne tànk yi lañ takk ca ween ya loxo ya ñu takk ko ci njubbu la mooy bopp ba boole ko jaaneeg jiit yi kooku moo di jigéen ji nga xam ne du sangu janaa ba bu dagg te du sangu watasta ci julli mu di ñaawal julli ndax laawut ba pare di julli xam nga kooku ku sàggan lool la waa man la ci ndaal jigéen ji nga xam ne rasuwa boppam rasu xinziirin bopp mbaam xuux la wa badanu xaa yaramam badanu ximaarin bopp yaramu mbaam kër la fay naa naka jigéen jooju kaanat nekkoon na na maamatan di rambaaj kat kazaaba di naraakoon jigéen ji nga xam ne bopp bi bopp mbaam xuux la yaram bi yaramu mbaam kër kooku daf daan jaxase diggante nit ñi daf daan nar di wax lu dëgg te bëri lu mu koy def loolu moo waral yàlla def ko mbaam bopp bi nag yore bopp mbaam xuux waa mat la ci waaye jigéen ji nga xam ne ala suratil kalbi aleykum salaam mu ngi ci melo xaj jigéen ji nga xam ne yàlla daf ko jox mu yore melokaanu xaj wan naaru safarati tadxulu mu ngay dugg min fiha ci gémmiñam wa taxruju muy génn min duburiha ci gannaawam fa innaha naka jigéen jooju mën naa na ñaaxaa koon la mooy lum la def rek dana ko bàkku sa kaw dana ko wax ba ñëpp dégg ko xasaada añaanaa koon la mooy koo xam ne bëggul kenn am dara loolu moo waral yàlla def jigéen jooju mu yore mero xaj safara si dugg ci gémmiñ ga di génne ca gannaaw ga kon daal lu mën a xew melo yi melo yu jara moytu la bu ci njëkk mooy ñàkk muur sa bopp hadis bi wax na ne fayam moo di takk bopp ba ci kaw safara yurga yi baax yàlla incha allah musal ñaareel ba mooy di lor sa jëkkër sa làmmañ làmmañ ba lañuy takk di sotti ndox mu tàng ca porox ga ñetteel ba mooy di yàq sa lalu jëkkër ko kërëjal ak façon kërëjal gu mu mën a doon su ko defee ween yi lañuy takk ca safara di ko mbugal bi ci topp mooy ñàkk sangu set wala ñàkk toppatoo sangu ma tànk yi lañuy takk ca wen wi loxo yi ñu takk ko ca njubul bopp ba boole koog jaan yeeg jiit yi ñu di ko matt bi ci topp mooy rambaaj ak fen mooy nar wax lu dëgg ku koy def daal yaram ba koy def mbaam bopp ba ñu def ko mbaam xuux ba ci mujj mooy koo xam ne dafay ñaaxee di yàqala muy def maanaam di ko nettali teg ci añaan lool bu ko defee kooku yaram ba koy def yaram mu xaj safara ci dugg ca gémmiñ ga diggéen ne ca gannaawam bu ko defee xadis yi andi moom waxoon na ci commencement téere bi ne du andi lu mooy xadis yi nga xam ni xadis yu wér la daf ne xadis yi mu andi ci téere bi yu wér la yii di la ragal loolu bon yii di la xemam loolu baax kon xadis bi wér na ci fa moom dégg nga li mën a xew daal mooy moytu yu ñaaw yi moom moo gën a xóor di ci dugg mbugalam sawara daal mbugalam àllaaxira nu la ko waaye melalee rek gën na koo tat yàlla ci yàlla musal musal ci boolem jullit in uridu ila islam astata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu yi mujj ñu ko jëlee ci kitaabul kabair téere bi jàngale bàkkaari mag yi mooy mujj ci wàllu sëy ak ci aju moo dugg ci àqi dëkk ndoor ak dénkaane borom bi subhanahu wa taala ñu sàmm aqi dëkkandoor